waaw sama gars yi ba tey rek ah Zalex design lii ko ko gis xam ne ay masque la ah ngi ci période boo xamante ni période bu doy waar la ah ci période pandémique boo xamante ni àdduna bi yëpp la la ah, vraiment mu nekk loo xamante ni nag jumtukaay la boo xamante ni ah moo la mën a sàmm xam ñun message bi biñ ciy lancé rek mooy gars yi nañu gën a jàppaat ah gën a xam ni xeex bi mi ngi fi mi ngi Sénégal ah parce que man des fois mooy sentir ni gars yi ñu ngi bàyyeeku dañuy takk masque yi saa bu ñuy génn ah di yor gel yi di moytu daje bu bari bi xam nga mesure de barrière yi nga xamante ni moom la gars yi teg ngir yàlla war a suuli buñ koy fàtte parce que même fii ku ciy génn da yóbbaale sa masque waaw masque yi nag li waral Sénégal jotuñ si parce que defar naa si lu bëri mais ku ne xam na ni yoon yëpp tëj aéroport yëpp a tëj moo waral xam nga masque yi agsiwul si yéen mais nag n'empêche def lu baax moom fi nga dëkk sax naam fa nga koy fa nga koy tàmbalee ndax Amérique la ñu yàlla la ñu dëkk fi di fi yeewoo suñu njaboot nekk fi donc dañu jugé nécessaire jël masque yi nga xam ne ñoo koy defal dem ci population bi dem si ñëpp ñu ku ñu gis ku ñu romb ci mbedd mi li jox la masque parce que lii tamit bokk ci xeex bi la waaw ndaxte dëkk di nga nekk di fa suturloo dañuy jàpp ni dëkk boobu nga dëkk kon war nañu contribuer ci xeex bi nga xamante ni moom la àdduna sépp di xeex feebar bi gars yi ngalawaay nañuy takk masque yi te bañ a fàtte ni feebar bi mi ngi fi ñu xeex ko benn yoon mu jóge fi ku nekk delluwaat say activité wasalaam maa ngi nuyu ñëpp ah Sénégal waa Médina ah waa partout dans le monde ñu ngi leen di bëggee di leen jaar di leen xam ne lépp ci MTV lay xewee jaa ngeen jëf la chaîne médinoise. <laughs> oh no. lii mooy liggéey